Ahmad Diop defal ma tafaul ci Sénégal ndax moo di sunum réew waaw kay xam nga Sénégal moo di sunum réew mënoon nañoo juddoo Medina wala Màkk wala Mali kon nag Sénégal siin yan nañ ci am salaaman wala nga ne salaamun qawlan min rabbin rahim jàmm ju mët sëkk joo xam ne ay wax la ak i jëf ju baxeekoo ci borom bi nga xam ne mooy yërëm jaam yi nuun gi yan nañ ci am nuzulan min ghafurin rahim ngan loo xam ne lu neex lay doon waa Sénégal yëpp mu bàyyee ko ci ki nga xam ne mooy jéggale mooy yërëme raa gi yan nañu yàlla musal ci xayril maxdubi alayhim wala dalin kii nga xam ne moo ñu jiite ba mu nekk kuñ mere ba mu nekk ku réer laam gi yàlla tifu yow mi nga xam ne yaay ñëwati yan nag ñu yërëm ba defal ñu ko mel ni jibrilu